doomi Duudu Ngom ak Fatou Diom Ndiaye man maa dëkk kipp maa liggéey am sama kër dëkk kipp dendek waa ñii affaire bi dal man nag maa ngi leen di seddal ne ba ma juddoo ba léegi maa ngi sama juróom benn fukki at yu manqué benn mosuma def dëli xawma dëli ma dul liggéey dem ñëw wàcc marché Bargny laa nekk waajuru xale bi marché Bargny la nekk am fa place ma am fa place mais dama ne man mag maami coro xaw ma lu lu baax moom la ma ñëpp xamee tout le monde bu gisee boobu ba léegi dugg nun ñun dañu xamoon kes affaire bi lan la li tax lan la man maa doon togg dëj bi ndax dëkkandoo dëkkandoo dafa metti mais xaw ma conséquences yi lan la man tey si suba muy démb laataal dégg lu ne ma di ko dégg baayam dafa feebar bi nga hôpital pour lan doomu jàmbur pour lan doomu jàmbur nga jël lu ñaaw nga di ko ko wax doomu jàmbur ku ne am nga doom coro fukki at ak ñaar la am maa jur mooy sama taaw coro si boppam xamul dem xamul dikk jàngi suivre ay kayam la xam mi ngi sama wet mi ngi may raay amul benn problème xale bi ñuy wax ne mooy ànd ak coro muy waajuri ku góor ki dama ne doomam la waaji di doxaan barke Seydina Muhammad doomu kan duma àgg si tur parce que bu wax àggul sama tur muy parent ku kii ki ñu rey seen doom ay parents am dégg nga waa ji reye seen doom laan doxaan bi ñuy wax maa ngi dégg lépp jaarul sama tur duma jaar ci turam parce que bëgguma tooñ mais di ma wax maa ngi koy dégg dama koy delawaat mu wax ne moom Coro Mbuub la waa ji doon doxaan jamais man dama oor yàlla moo ma gën a doomu aadama parce que xaw ma dinaa fanaan wala dee dee yi bari na nañu gëm su yàlla te delluwaat suñu bopp si yàlla wax bu ñaaw bu métti na si weeru koor fukki fan yu mujj yi dëkk dafa yàgg ay doom sama kër la ñuy ferkante guddi ak bëccëg dañ fay tibb si xorom dañ fay tibb si xal ma mujj mën a ee eh, xale bi dagaas xal kenn ko tibb si kër jàmbur ndax lépp dëkkandoo la mais bu ñu boo fekkee ne ndog dafa daanu sa kaw ndog metti na dee bakkan metti na mais après na nga wax lu rafet na nga wax rafet dëkk dafa yàgg ñun mag ñi dañuy dem bàyyi fi xale ñu dëkk mais nag bu rafetee day continuer mais jël coro mbuub coro mbuub coro mbuub coro maa jur baayam. li nga doon wax sànq ne dafa dañ ko doon doxaan dafa da nga am lu la si xale bu jigéen bi mooy sama coro mais waajur ku góor kiy wax ne coro mbuub la doon doxaan amul na xool yàlla doomam la doon doxaan parce que bi ñu bëggee affaire bu leer doom la ñu fekk école. kan ma doon doxaan doomam muy waaj yi kii rey la ñu wax. mama mama ñun ñëpp dëkk képp. Mama Amady moo doon doxaan doomi waajur ki ñu rey. lu ci coro doon. day ànd ak doomam coro day ànd ak doomam ñooy ànd chaque jur bu ñu dem di jàng nooy bokk sax sipes yi ñuy entraînement ñooy bokk lépp xale bu jigéen bi si boppam moom la am ma doon doxaan barke yonent bi dama or moom la doon doxaan moom ay waajuram xam nañu loolu. est bokk woon Fatam ak coro. non non non non non far benn góor bu ñaari xarit mën nañu ko bokk far. loolu mënul nekk wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu wax bu dofee nopp yi koy dégg dofuñu lu boole coro ci mbir mi lu boole coro mbir mi moom waa ji day doxan xale boobu wa fi mu déegi am léegi li leen xamal xale bi fi mu nekkal portable bi ñu ngi ko jëlee ci xale bi école coro mbuub si boppam day ànd ak xale boobu muy waaju fiir déegi am day ànd ak seen doom parce benn kër la matul nit benn kër la ngir génn fi dugg fii ñuy ànd man sama coro mbub si boppam dama ko daax nakaan coro mu ne mën naa ma ne ko man dugg bi ak coro ak diw mi lay àndal neexuma. mais loolu papaam wax na ne tam am na ne bàyyi coro muy fréquenté ndaxte. non non coro mbub mën la ànd bi neexul ak doomam moom papa ji wax man la ànd bi neexul mu wér yàlla wér yorante bi may wax coro mbub bàyyi ko. bàyyi ko. li tax ànd bi neexuma maanaam dama bëgg mu suivre ay kayam. kon xale bi du jàngkat. xale bi day jàng ñoo bokk école mais man dama bëgg sama doom suivre ay kayam kenn ku nekk sa doom ngay compter pour mu suivre ay kayam ma nekk na ko nekk toog sa kër di suivre ay kayam. loolu wër na mbokki parents parce que man mbokki parents yi duñu dem lante. léegi lan nga ñëw ci lan moo yóbbu woon. coro danoon jëndi këriñ. bi muy jëndi këriñ xale bu jigéen bii ñu faat di sama sët ne ko coro may ma màngo mu ne ko màng bi dafa jeex nañ dem ma may la këddam ba jënd màngo ñu ànd dem jënd ko màngo si yoon bi bi mu ko jëndalee màngo ñu dem di jënd kër mi ngi ba sëñ sama sët bërk dem laa ko ngénte amagul sax weer léegi euh, amadi bi gis coro ne ko coro kaay ma la si sa xarit mu wér yàlla ndax seen diggante la kaay ma yóbbante sa xarit coro dem xam nga koo miin ñuy waxtaan comme moom la daan doxaan ñi ngi xaritoo ñooy ànd ki ngay doxaan sa xarit tamit bu ko dee doxaan dangay koy xam parce que yéenay ànd sa xarit bu de bu ko amee koy doxaan yow xaritam dangay xam ki koy doxaan parce que yéenay ànd tout le temps yéenay ànd xale bi day ñëw sama kër di fa añee coor dem seen kër di fa añee léegi mu ne kaa ma yóbbante la coor topp ko ak liir bi mu boot sëñ fàllu xale baa ngi téye kër ngi coor àndal ñu dem muy di ko mbalag ñu dem ba àgg mu ne coro damay tëdd ak yow par la force mbaa ma rey la rey kii rey xale bi nga àndal génne paaka paaka ban gis nañu ko génne mbaari bi teg pamti pamtee coro ba kutti tubay jiinam yegga si moom versé ko léeb bi ñu ngi ko teg ci ñax mi boobu ana xale bu xale bu mi ngi téye kër ngi taxaw dégg ñu Anta Ndiaye lay wax ndax fekke na Anta Ndiaye fekke na ko fekke na ko mi ngi taxaw yore këriñ gi coro mi ngi tëral sañ Fallou doom ji ñu ngi ko waa ji moo tikki cor doom ji teg ko nees ñax bi doom ji sax fu nekk koy bon hôpital bébé ya xam koy sa passe kenn xam da ko këdd wala lan. am dañ ko yóbbu hôpital di ko suivre papaam sëñ Bamba ndax cor dafa xale dafa ñëw di appaat ma ne ko kii yóbbu ko ndax tegoo ko tànkam wala déet. waaye dara ci moom. mais dañ ko jax ay garab ñu ne dënn bi poussière bi la. léegi coro xale bi yegga si moom daal di xale waa ji génn ne ko yow mu jàng may xool parce que juróom-ñaari at xale da ngay xam mu def loolu moo xam. donc si kanamam la si kanamam la ko si kanam ki mu violé ki ñu rey ki ñu mi ngi tëdd ndax ku ñu violé ngay xale dangay ngay feebar mi ngi tëdd mu ngi xutti tubay jiin yi am di mi ngi xutti tubay coro sama sëpp. cogo jiin la soloon. te tubéy jiin la soloon. donc Amady moo violé moo def moo def. acte moo moo violé moo def acte bële. d'accord léegi ñuy sori. waaw nga cogo bu ñu ko violé ku ne xam ne jànq bu ñu violé. waaw na lu mu génne ndax am ngeen certificat médical bu firndeel ne egg nañ ci kaw. parce que yóbbuwoon dem di ko xool. voilà bi ko defee noonu. yoon jël leen yóbbu coro mu ñëw ñu ñu ne yóbbu ko boo dee nga jox ko mu ñëw bët set ñu delluwaat enquête bi enquête la. déedéet ñun yóbbuñ ko hôpital parce que yoon ñooy def seen liggéey comme mi si loxo yoon yoon ñoo def seen liggéey. est ngeen yoon ne ko gone bu jigéen gi dañu ñun waxuñu yoon ñoo xam seen liggéey naka la. léegi ku wax dafa àgg ci kawam kon. ñoom yoon ñoo ko yóbbu. kan moo wax ne. ci rapport rapport enquête si ngeen xamee ne loolu. man loolu sax démb laa ko yëg. Ah, ci kayit yi ci kayit yi op fële tribunal laa ko gis ci kayit yi mhm. kayit yi yoon. ñi nga xam ñoom la fi buur teg ñoo téye xale yi ñoom ñoo yóbbu coro. donc ñoom ñoo firndeel ne nañ ci moom. ñoom ñoo yóbbu coro euh, médical bi ak euh, analyse yi ak yëpp ak tout ak tout ak tout ñoom ñoo ko liggéey seen liggéey la ñoom bi ñu paree ñoom ñoo xamal ne ñoo ñu xamal yaay coro ne ko kii dañuy yegg si moom. léegi dañ ñu pare daal di dem jëlaat coro jëlaat ëmmëdi jëlaat euh, xale bu ndaw yóbbuwaat defaat enquête fa ñu tëddoon. léegi bi ñu leen di wax ne dañu yegg si moom viol lañ leen wax. viol la coro mi ngi feebar fañ ko tëral. feebar di kat ma ne ko la mu ne maam dama feebar di lox coro mineur la. yow vérifié woo boobu la wala. non man mënuma xam. feebar bi lan la. da nga ko njortuwuma sa xel. njortuwuma dara man njortuwuma dara xawma dara tubay ji falaa ko fekk mu jël oma ñaan tantam oma fóot yëre yi daal dem tëdd sama lal. xotteeku bi moom coro si boppam. xotteeku bi nag noo ko gisee. xotteeku ni ma ko gisee. moom moo doon yegg sama xottu tubayam. déedéet ban moment nga gis tubay coro comme taas bi taas bi ñun ay mag la ñu xam nañu ndaw mais man xawma xawma xalaatoo ko. xalaatuma ko man ci yoon démb ci yoon ci yoon ci yoon démb bi ñu ko génnee ci ci sept heures man dama crise dama jooy. mais muy kët-kët yi ñëw àndaale tubay bu xotteeku di ko fóot. non non non non kët-kët fekkuma fa kët-kët bi. ah fekkuma fa fekkuma fa. damay jaay man. kon ban moment nga koy yëg bi bi nga dellu si man ci guddi gi maag pàppee xal bi ñoo jiitlante bi ñu koy woo ñu jiitlante man may wàcc topp si moom muy muy jiitlante yor portable am man ma dugg summi sama yëre parce que gëj naa jaay ma ñëw du gis papaam di wax. alors leneen lu jaaxalaate mooy Coro fan la jëlee portable parce que waa kër gi. Coro amul portable ci information xoolal Coro barke yonent bi amul portable. Coro amul portable Coro amul portable bu ma kaamir tegoon ma teg sama loxo Coro amul portable. ñaari portable yi ñu koy jiiñ. ñaari portable dañuy wax rek dañuy mbal ak ñoom parce que seen doom fa lañ jëlee numéro Amady ba mën a euh, def euh, nuñ koy waxee sax enquête bi si seen doom lañ ko jëlee seen poste doom la ñu jëlee numéro bi ñu fekkaat seen doom école mu wax ne sama far la mais dañu bàyyante léegi ñoom si diggante bi ñu xam ne coro bi yoolee nañu ko ñoom si lañ jëlee wax ji di ko tas di di wax wax bu ñaaw di tas ñoom waa viol bi Sénégal kër mu këpp yëg nañ ko man sama rakk yi nekk états ma ko jëkk a sama rek mbokk yi nekk états ñoo ma ko jëkk a lancé. yaay waaw. waaw ñu siif que lépp si même heure la lépp si même heure la parce que man dama wàcc heure dog dog jot na laa duggee sama kër dog jot na laa déggee yuuxu yi dog jot na lañ jëlee coro yóbbu. coro lañ ko jëlee yóbbu. kon fu fa lañ ko jële fu sama kër lañ ko jële maanaam waa yoon ñoo ñëw jël si ko foofu. waaw. waaw yéen naka lañ def ba jël si ko lan lan lan lañ ko accusé ban waaw fan la ñu jaar ba lan lañ ko jiiñ ba tax ñu ñëw jël. waaw xam nga dañ ne xale bi dafa ànd ak coro jëndi këriñ. xool caméra dafa ànd ak coro jëndi këriñ comme ànd ak coro jëndi këriñ léegi ñoom bu ñu koy seet danaa coro laa doon jëndi këriñ léegi nag coro maa doon jëndi këriñ léegi li ko def si diggante wu mu jënd jëkkëriñ mooy lii. lenn jaaxalaate ne aussi nee nañu coro jóge na si si buntu kër ba ba ñuy wër xale bi. ànd ak ñoom ba foofu. wan kooku amul loolu amul. c'est pas vrai loolu amul. loolu amul. loolu amul. yàlla moo nu tiim nanu rafetal wax yi. yàlla moo nu tiim danoo nekk ci koor dañuy dee lépp fi nañ koy bàyyi nañu wax dëgg ndax kenn ku nekk yàlla moo la tiim te da ngay dee. rawatina ngay sosal sa moroomu jullit wala sa moroomu doom di di avertir sa doom. léegi kan moo wax enquêteurs yi que ne Coro moo ko gunge woon ànd ak moom di jënd kër yi. moom Coro moo ko wax. bi ñu ko jësee. waaw. Euh, leneen bi euh, tukkee ci euh, tey jii waa Libération wax nañ ko sax ni que enquête ba ñu interroger Coro Coro dafa nangu maanaam wax wax yi ñu koy takkal daf koo nangu. waaye yooyu yëpp ñoom xamuñu ci dara parce que ña yor saytu ja euh, ñi yor maanaam liggéey ba ñoom waxuñu kenn liggéey bi nii la demee ñoom ña nga yor seen liggéey di ko liggéey ak ña ñu ko bokkal kenn mënagul xam tant que liggéey bu eggul ñuy wax ñëpp gisuñu benn li ñuy liggéey xamuñu ci dara. dañoo sukkandiku enquête enquête bi nga wax ak li nga wax léegi ne. rapport enquête bi tam xaw naa génn te taskat xibaar yi mën nañu am privilège pour xam ko. mu ne woon dafa fekkee léegi jóge ci fekkee bi ne moom moo jàppale mama pour mu faat ko loolu tontu ci loolu. loolu waa ku ñuy violé noo jàppale ma pour mu faat ko ku ñuy yegg si yow ne la boo waxee ma rey la dama lay rey xam naa fi ngay jànge xam naa say rakk xam naa sa ñëpp dama lay rey gestu def li mu def noonu. coro mi ngi mi ngi fi ñu ko teg mi ngi feebar ñun mineur la ñu yor xale lañu yor mi ngi feebar ku jur doom xamal ne doom dafa metti dëgg la ñu ngi jaal ki faatu mais ñun tam sunu doom fa mu tëdd ne ah metti na la ko dal metti na max ma ngi feebar amul benn cër boo xamante ne bii mat na ndigga ma ngay metti mu ngi feebar ñu ngi jënd ay garab di ko jax ñoom ñi nga xamante ne ñoo jël coro ñoo jël coro di ko di ko yóbbu di xam ñoom xam nañu matière bi nu mu demee ñoom ñooy liggéey kenn mënu xam li ñu liggéey lan la mbete ñoom ñu àgg ci bés bi ñu waree wax liggéey bi lan la ñuy wax ñëpp comme nii rek nga ñëw ñu taaj la ngay wax ngay wax. pourtant presse bi dina am souvent accès. ci presse bi dañ fa dem ah, xaaral tuuti dina am dina am accès ci rapport yi nga xam ne moom la euh, euh, légiste beeg ñeneen ñi di def euh, rapport yooyu noonu souvent moom la lu ci mel ni Libération di publier. ci wala ñoom sa jot di ko exploité loolu moo waral ngay gis ne presse am na souvent ay sources yu leer ci li muy wax. man de yooyu yëpp presse moom ma ko xamal man presse si loolu laa ko déggee man sama portable démb ak tey laa commencé gën a connexion di dégg lépp di dégg version yëpp mu jaaxal ma. nekkee mooy. yow mm-hmm. nee nga rapport bi mu firndeel ni Coro dañoo àgg ci kawam. waaye yaa ngi dàq le fait que ñeneen sukkandikoo ci même rapport bi pour wax ni que Coro moo jàppale pour ñu fàq xale. loolu amul foofu la jafe-jafe loolu amul. mais gëm nga rapport bi li mu wax ne yegg nañ ci kaw Coro. gëm naa ko parce que maa moom sama sët. léegi gën nga rapport bi journaliste yi bind ne ci rapport boobu lañu sukkandiku gu wax ne euh, Coro moo jàppale ma moom. waaw Coro nu mu jàppale ma moom waaye moom ko ñu jàpp day say loxo day tàppe say tànk. ku ñu jàpp bu ñu la jàppee bu ñu tàppee say loxo loxo yi day gën si tànk yi mais xoj bii moom moo xoj loxo yi moom moo génn si loxo baatu Anta Ndiaye xanaa nopp dof bu wax bu dofee ñi koy dégg dofuñu. mais est-ce que euh, sa ji ngay wax coono mën naa ñëw wax la lu mel ni menace ak loolu ak lan moo tax moom ma tàmm ko pour ko. non non mosuma wax ma menace mosuma wax benn menace bu ko nit def ndax man sama kër. damay tëj sama buntu kër bu wàccee du jàngi sax cours de vacances si biir kër gi lañuy jànge man sama kër ku témoye sa koñ ba ña baax day ndax sama kër man dama koy tëj dégg nga kon coro amul ku koy menacer. déedéet alors alors ma ma soxna si kër gi ngeen dëkk ak waa famille bi ñu rey xale bi ak fa mbir yi xawee dox naa fa dox dox. mais boobu moom da nga fa doxee dox xayma nga baal ma bi ma xayma. waaw war naa tollu ci euh, cent mètres wala lu ko jege. 500 mètres lu ko jege. waaw li li ñu jaaxal mooy lan naka la ñu ñoom ñett ñëpp naka lañu mën a dajee foofu. waa léegi boo xamee sa waay xam sa sa sa xarit waayam ngeen nekk lu yàgg mu di ko doxaan ngeen miinante bu la waxee dama la yóbbante si diw kaay di waxtaan ak yow booy egg France doo ko yëg. ndax ah, yóbbante xarit moom ak Coro dox nañ ba foofu. waaw parce que moom moo jël cere yóbbu ko foofu. mais ba ci biir bâtiment bi lu tax loolu waxtaan foog naa ne. non non moom booba bëgg na li mu bëgg ci coro. voilà dama ne dama ne dama ne dama ne bu loolu paasee parent ki ñu rey dégg naa démb benn audio nee na man bi ma toxusee moo ma daan dimbali pourquoi baax bu déggalaas baaxul moo ma daan dimbali man maa ko jëkk a bi ko jëkkee fondement moom mu ñëw ma feebar ci diggante mu ñëw di liggéey duggaat sama duggaat sama kër mètre continuer 10 mètres ma wootee ay fameem fameem yooyu tey nekkuñu nalaw nañu meen woowee ñu ñëw pour lii mooy lan yoon ne nañu ko toj ma ne ko man du ma toj tabaxu kenn mais baalu ma ko bés si raat parce que maa moom sama kër damaa ko jëkk jënd jënd samay titre foncier yor samay kayit ñu nekk si loolu en boobu noonu sax man tax na man duggantewuñu. man non non non non. non non neexawuñu. sànq wax nga dañuy ñëw kër ga ñaan xorom. non non xale yi man dama yor ay goro man maamoon sama kër damay xëy jaay dama yor ay goro goro yi dañuy demlante dañuy demlante parce que buñ leen àbbee ñu àbb leen ñu leen ñaan ñaan leen parce que à contre dëkkandoo la mais man sël bu ma nekkoon sama kër man sël ñooñu duñ fa dugga dimbali boobu muy wax nag amul moom place bi mu am marché di jaay place boobu la am marché di jaay muy jaay may jaay courant boobu man dama sama courant am sama ndox sama ndox ma wa jiitu ma soo ko taxu kon nit sax même nit boo ko dimbalee te ngay julit waroo ko wax parce que nit mi ngi gis mi ngi yàkkamte ku mu gis ba dimbali ndax li ngay dimbalee nit moom ngay fekk bar sax kon rawatina bu loolu amee ñoom ñu taqale di wax lu ñu xam rek di ko teg si sama sët sama sët bi corom mineur la demul dikkul man mi maam dew ma dikku ma yaay ma dem ci am demul dikkul papaam demul dikkul man samay doom dóoru waar la ñu xam ñibbi si waat ci kër gi ma dem ci am yaay mooy mooy sama première goro demul dikkul barke yonent bi déggal na ma yam na samay loxo corom bu maanaam lu mu jur day barkeer kon corom mbuub lu ñaaw lu ñu teg ci daram dañu am ay doom te yàlla day atte am na ay mag am na mag nday ami mbuub mooy taaw bi coro moo si toppa xadi toppa si beneen xadi bi toppasi si voilà xadi bu mujj bi moo maase kii nii voilà mais mais àddina góor gu baax nañu xool li ñuy wax di ko sentantal àddina yàggul àddina yàggul bu ñàkk pare di ñànki mais waa ji li wax ne noo bokk mbir moom may dimbali sa pas kooku bàyyi naa ko yàlla ak yonti yàlla moom mudd kanti moom am marché di liggéey moom laa am marché di liggéey man fii laa juddoo sama yaay fi la nekk sama baay li fi nekk fi la nekk mais aw ma problème ak nit ñi aw ma problème ak dëkk yi cooroon nag mineur la xale nañu nañu bàyyi deram bi ñuy yàq dañu am ay doom bëgg a jekk-jekkal man ta tax ñu fat seen doom di yàq sama deru sët dañ bàyyi sama sët bi wax ji bari na ñaaw na salte na waaye yàlla mooy leeral jaam yi